Diop may fàttali nga nekk directeur général bu agence pour l'économie euh, et euh, la maîtrise de l'énergie yow sa gis-gis bu njëkk ci euh, doxu ñaxtu bi collectif bi na ma amal muy yokkute courant gi ak ni ñu ko xamee yow noo ko jàngatee laatu ñuy xuus dëgg-dëgg ci jafe-jafe courant bi. lu jaadu na ñi ngi lay di xamal ni mm-hmm. doxu ñaxtu. dafa bokk ci en tout cas droit yi nga xamante ni citoyen am na ko te Sénégal nekk dëkk boo xamante ni dëkku démocratie la kon kenn mënta wax ni citoyen bu amee lu ko naqari amul droit dox doxu ñaxtu kenn nangul nañ leen ko waaye je pense que euh, ci état de droit lañ nekk lépp dañ ko war a encadrer moo tax euh, ku bëgg a dox sa doxu ñaxtu danga nga war a demander sa autorisation autorité bi nga xamante ni tey moom mooy préfet moom moo ñu ëpp ay information ñoom ñooy euh, kiir askan ñun ñu ñooy xool ban instant lañ war a mën a dox ak fan war a dox loolu aussi euh, droit ay ñaxtu sax ñoom la ñu wax ah dajaloo euh, def benn toogaay ñaxtu waaye du caagante ne sax dañuy euh, jógee ci tali dox beneen tali mais toog xam nga Sénégal yaatu na Dakar yaatu na mhm. fi nga mën a toogee bari na fi nga mën a waxe bari na donc kon autorité bi muy préfet moom mooy xool fi nga xamante ni ak ci jamono ji nga xamante ni war nañ leen a autoriser te yaakaar naa ni mhm. Sénégal mooy dëkk boo xamante ni ajjuma bu nekk ñu nekk di marche nag marche am na ci ci àdduna bi yëpp mais du ajjuma bu nekk ñu bëgg bloqué dëkk bi ndaxte boo xoolee aussi tamit marche bi dafa am citoyen yoo xamante ne nii dañoo war a liggéey te liggéey bi ci la ñuy jël li ñuy dundee lu ñuy fayee courant mhm. kon bu ñu bëggee weer wi ñu téye ci ñeenti ajjuma kenn du liggéey parce que man am na ñu ma amaloon rendez-vous tey dañ ko annulé dañoo yaakaaroon di Dakar kenn du mën a dem kenn du mën a dikk yàgg naa leen wax ni leen nag Sénégal dëkku droit la kenn mënu ko perturbé kon nit ñi ñi ngi leen di nangul seen àq ak yeleef boobu nga xamante ne war nañoo wax li leen naqare dox ko waaye nañu suivre aussi autorité bi que force reste à la loi. Mhm. ñu waxtaan ak préfet lu mu leen ci digal ñu def ko ndax ñun ñëpp ay citoyen lañ force de l'ordre yi aussi dañ fay nekk pour aar ñu aar suñuy bien aar suñu alal. voilà ñun ñëpp ay citoyen lañ courant bi euh, ñu yokk ko sa xam-xam màccit euh, ci wàllu euh, électricité courant jaadu na. jàpp naa ni àdduna ak ni muy doxee. Mhm. yokk ak wàññi. kenn mënu koo dindi ci àdduna démb rek maa ngi waxanteeg suñu benn naataango sénégalais bu nekk ci bitim réew waaye moom dafa jàpp ni yokk bi nga xamante ne day am ci àdduna fépp la am kon bu ñu yokkee euh, li nga xamante ni dama koy wax muy euh, pétrole nga xam ni kat moom la ñuy toggee courant di ci def leneen ak leneen buñ ko yokkee te daanaka ñun jàpp nañ ni Sénégal dëkk la bu am pétrole waaye génnagul ñun ba léegi dañ koy jëggaani dañ koy jëndi kon bu ñu yokkee li nga xamante ni moom ngay toggee palaat bi nga xam ne da ko war a yàq jaay ko normalement xel war na mën a nangu nag ni yokk boobu am na fu muy toll wax dëgg yàlla war nañ koo mën a supporter beneen bi moom mooy euh, nañu jàpp ni euh, Sénélec dafa nekk société boo xamante ni société nationale la. te yaakaar naa ni du société boo xamante ni dafa am liberté di def lu ko neex dafa am régulation bu koy suivre di xool njëg gi mi ah, di ko di ko courant bi di dikkee ak bi mu koy jaayee di ci wax ak état bi mu xool nu mu ciy def. kon jàpp nañ ni loolu yëpp réguler nañ ko ba yokk bi nga xamante ni tey moom mooy 6 pour cent jëm 10 pour cent Senelec yokk ko ci njëgu courant bi euh, yaakaar naa ni xel na ko nangu ndaxte état du Sénégal kat yokk bi nga xamante ni moom lañ waroon a def yëpp régulation bi ñu jox ko dafa continuer mais xëy na lu ñu xëy na lu ñu mënta comprendre mooy dégg nañ fi euh, kilifa Sénégal yi di wax dégg nañ fi nguurug Sénégal di wax euh, maanaam matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko ak Sénégal euh, koppar yi nga xamante ne jagleel nañ ko ko ak liggéey bi nga xamante ne def na ko muy ay jéego ñu doon xalaat ni xëy na du at yu weesu waaye at yi ñu dëgmal benn jafe-jafe dootul am ci wàllu courant dem nañ sax ba sati ba taxaw ne war nañu mën a satisfaire sax monde rural bi nga xamante ni bari nañu yuuxu ni mënuñoo jote ci courant xëy na bu ñu toogee ba jamono ji ñu ne dañuy yokki tamit est-ce que loolu tamit ñun askan wi nuñ ko mën a jàngatee. Eh, ndax jéego yi Sénélec def. Mhm. ci wàllu courant état du Sénégal def ko ci wàllu courant yaakaar naa kenn mënu koo lam-lamee. Mhm. parce que olof dafay wax naan bala nga naan nekk fa ñun ñëpp dund nañ fi lu yàggul muy 2011 jëm 2012. ñëpp xam nañ ni des fois da nga daan xëy doo mën a am doo nelaw ndaxte ventilateur bi nga am ci ñi néew doole amuñu climatiseur doo ko mën a taal ah, yooyu sonal la lampe sax doo ko am. Mhm. ah boobu yaakaar naa ku ñu waxoon ni ñu yokk sa facture doublé ko nga nangu. kon situation boobu dafa nekkoon lu gën a graaw. Sénélec dafa investir ba xuy kamaj boog ji fay gee tàkk googu jóge fi. Mhm. menuisier bi nga xamante ne dafa yoroon euh, atelier te ci courant lay liggéeyee am lu mu am lu mu yóbbul njabootam kooku bu gisul courant du mën a liggéey. bay wax naan yokk nañ ak yokk kon a d'accord ni moins Sénélec def na ay efforts yu am importance ba tey Sénégal wax dëgg yàlla nit ñu doon xeebee ku fi ñëw doo mën a def dara ndax courant buy coupé te courant dama koy wax moom mooy deret ci yaram mënta ñàkk kon loolu au moins na ko sénégalais yi reconnaître leneen li ma bëgg wax mooy mhm. euh, li nga xamante ni aujourd'hui tey xëy na nit war nañ koo mën a comprendre mooy ñun ñi nga xamante ne tey yàlla def na ñu jot ci courant boobu. Mhm. tey nekk ci ay dëkku réewu taax bay jot ci courant ba naan cher nag seeru war nañoo mën a xalaat aussi suñu mbokk yi nekk ci àll bi. ñu nekk ci àll bi waaw justement justement lan moo lan lan moo lan moo waral sax euh, yokkute bi parce que dafa ci ci gis-gis dafa brusque maanaam parce que doon nañ fi toog ne euh, jëm ñi ngi fas yéene jëm ci wàññi courant bi loolu doon nañ ko fi wax ñu jékki-jékki ne dañ koy yokk maanaam ni mu ni mu ni mu gaawee noonu lan moo nekk ci biir dëgg-dëgg lan moo indi euh, Euh, yokkute gi tey. lu ko justifié nekk moom mooy que ni da ngeen a war a xam ni état ay prévision la bu ñu waxee ni am nañ yéene courant bi wàcc am nañ yéene am courant bu doy boo xamante ni nii tey ñun dañuy doyal ba koy jaay ñeneen loolu war nañ ko mën a nangu. te mhm. état du Sénégal commencé na cee liggéey le département de l' énergie parce que yaakaar nañ ni gaz dina feeñ ci Sénégal tey boo xoolee am nañ un projet bu ñu tuddee gaz to power ñi ngi changé centrale yëpp di ko def centrale à jaaye kenn mais mhm. loolu suñu projet la jëm nañ ci mhm. des autoroutes la boo xamante ni ñu ngi liggéey ndaxte dañoo war a am gaz dañoo war a transformer suñu centrale yi nga xam ni centrale à gaz lay doon bu ko defee production bi ñuy am ci gaz boobu une bonne partie dañ koy utiliser di togg ah, courant baadu jaayal boobu ngeen ngeen ngeen di waajal nag parce que nee dañu ci seen bébét la fas yéene jaay courant ñu jékki-jékki yokk courant bi mbaa yokk bi li koy justifier wax naa la ko. Mhm. parce que aujourd'hui pétrole bi dafa yokk ci àdduna bi yëpp. te yokk gi xamante ni moom moo am tey du Sénégal kese bu ñu wëree àdduna ñi nga xamante ni dañuy informé wu xam nañ ni pétrole bu yokkoo ci àdduna lépp day yokku te yokk bi du pet du du du courant kese. du courant kese lu bari yokk na kon lan moo tax ñu bëgg ko jël teg ko ci courant bi encore une fois ma ñëw ci li may waxaat damay wax nii. ñun ñi jot courant dañoo war a xalaat suñu mbokk yi nekk ci àll bi nga xamante nii ñoo ñoom ñoo am benn droit ci am courant ndaxte ku amul courant tey doo mën a évoluer te dañoo jàpp ni tey euh, organisation des nations unies dafa fixé ni 2030 accès universel à l' électricité dafa war a am accès universel à l' boobu ñun niñ ko amee ñi nekk ci àll bi noonu lañ ko waree amee état du Sénégal le président Macky Sall ci en tout cas yéeneen bu rafet mu jàpp ni 2025 moom la fixé ni ñi nekk ci àll beeg ñi nekk ci tax mi yëpp. war nañoo am courant prévision également ci ngeen fas yéene sukkandiku tamit. ci askan wi ngir mën a. ci lenn lu dul ay. prévision moom laa ma yooyu très bien. ma ne mbaadu ci mbaadu ci askan wi ngeen fas yéene kon euh, maanaam tibbee pour mën a réaliser seen seen seen seen li ngeen bëgg aussi. Euh, ci askan wi la ñuy tibbee parce que état ak askan kenn mënu koo dindi da ngeen di xam ni état c'est nous yow la man a keneen état nekkul benn groupe d' individu boo xamante ne nii ñoom ñoo yor seen yëf di def. lu leen neex mais bariwul par rapport ak li nga xamante ni moom lañ waroon a def yokk bi tey waroon na mën a dem ba 26 pour cent. Ah. mais état moo continuer di. mbaa yéen a ngi xalaat nag maigre bourse yi tamit. mais maigre bourse yi effectivement ñoom boo xoolee ci tranche sociale bi lañ nekk ñoom yokk bi du leen laal. mais ñi ñu yokk bi laal mooy ñi nga xamante ne nii tey am nañ sañ-sañu utiliser ay climatiseur di ko taal. Ah, di di def lu leen neex ci courant te yàlla may na leen ko ñooñu dañ leen koy nangul mais nag dañoo war a jàpp ni état buy subventionné di jàppale ñi gën a néew doole la war a gën a jàppale ñi gën a néew doole mooy ñi nga xam ne tey dañoo nekk ci war a liggéey courant bi ba mu àgg ci ñoom te li ñuy jël mm-hmm. ci bi ñuy jox ñi nga xamante ñoo am doole loolu war nañ koo mën a jël yokk production bi yokk ligne yi ba mu àgg ci ñoom loolu pour leeral mooy ñi nga xamante ni est-ce que kon ñu maanaam ñiy fay facture yu yu mag yi euh, yéen ci loolu ngeen di sukkandiku wala boog dafa am consommation bu ngeen di def. ba mooy ñi nga xamante ne dañoo dem ba dugg ci troisième tranche bi seen consommation yëpp ci troisième tranche bi la mooy ñi nga xamante ne vraiment. nekkatuñ euh, ay consommateurs yu ndaw. ay nit lañ yoo xamante ne nii en tout cas amuñu benn limitation parce que seen seeni doole may na leen ko ñooñu nag muy aussi ak entreprise yi parce que lan moo tax état bi war a continuer di subventionner benn entreprise boo xamante ne nii en tout cas euh, dafay. utiliser courant di liggéey liggéeyam di am ay bénéfice euh, kooku dañoo war a ñu mhm. favoriser ki nga xamante ni citoyen la te néew doole. xam naa centrale solaire yi tamit. Euh,